Père maa ngi lay nuyu. waaw nga fas yéene ngemb sa poulain. mu fas yéene laale poulain Keba Kanté. waaw gis nga Jokal ci li mu jóge waaye gis nga Kewal ci li mu jugee. waaw ñaari xale yi noo leen gisee rawatina booy bi nga xam ne yaa ko ah, préparé. waaw ñu lay fay di nuyu Sénégal yëpp. Hmm. di nuyu Bawol yëpp it nag di nuyu Jamaïque. Hmm. di ko sant di ko gërëm parce que xaj na wax dëgg yàlla komba bi amoon na. yéen rëq-rëq yu ci am hmm. waaye nag nit da ngay gërëm nit ki daal parce que bi problème yi amee coow yi bëri woon na mais bi ma wax moom rek del ma ne sama grand nga sama lépp nga hmm. nu wax ñaari yoon loolu nag dama koy gërëm daal hmm. parce que nit it wax dëgg yàlla respect dafa am solo ci doomu aadama daal parce que nit ki bu la joxee cër vraiment da nga koy wax ba ñëpp xam ko parce que làmb ñoo ko bokk te liy xew tey rek la ñu xam ëllëg kenn xamul luy xew waaw làmb ji nag moom pour ñu expliquer ci parce que Kewel dafa def ay profam ba mu leer nañ. yaakaar naa wax dëgg yàlla xaj na làmb mooy dem ba ngay dem ba mu yàgg léeg nga jëlaat beneen yoon mais wax dëgg yàlla Kewel bu nu koy jéem a natableeg Jokal sax xanaa xëj na daa bëgg a développé ruutam rek. pour ndox hmm. dem. waaye du Jokal moo nekk adversaire boo xamante ne nii war na noo jaaxal daal parce que du moom loo xamante ne nii li mu fi def ak li fi kewel def ak combat yi bëre kewel bëre mm. ak ñoom moom ñi mu bëre wax dëgg yàlla boo ko comparé nga xam ne nekkul sax benn mm. parce que boo xoolee Jokal Mama Lamine de ko tas tastafee daan ko jël bu gaaw te euh, Mama Lamine kewel rek a doon mbër mi ko bëreloo ba mu xoox ba mu xoox mu fottor ñi ko dóor ci suuf ak duma ko duma yu métti xam mm. kon ñun parce que toogunu ba tey rek ñu ànd ak moom moom dafa wone prof woon ñu lu leer nañ ñu yar ko jàngal ko bëre xam ko bu baax c'est nag ñu bëri li ñu bëgg bu nu jëlee benn combat rek am na ñu bëree combat ba dañuy jàpp na mber mi moo mel noonu mais mbër mi nga xam ne moom la ñu génnee mbër mi nekkul dara ah yow moom magat la yow yaay xale yaw laay lii moom day dikk dëggal loola pour taxaw pour jéem la pièce daan la Hmm. te mbër yooyu boo bëggee sa carrière leer dëgg dëgg dëgg waroo bokk ci seen palmarès. Hmm. parce que mbër mu la jekkee ci làmb lu mat fukki at ak nangam ah. Hmm. mën na bëre ah am na lu mu fi def. heure boo dajeek moom li gën a am solo mooy nga sécuriser sa bopp ba noppi soog a bërek moom. loolu tax nag combat mag Tidiane Faye ñu bëri ñu ngi wax. mais non dafa nag yoon am na li mu bëre. teg na ko si yoon am na mbër yooyu waruñu la daan. kon yow li mu bëree Tidiane Faye ni mu bëree Tidiane Faye naa ci parce que bi mu koy bëree man maa nga fa parce que moom bëreewul dara dafa bëgg a taxaw rek pour jéem a nax kii te boo xoolee moom la muy bëre day xob bu ko booy bi jegee mu daw booy bi du dem force ji mu daan ko parce que xoolal Alioune Seye Senior daa daw ba mu sees ko mu nax ko njuuy ko dem mber moo xam ne nag làmb ji pièce rek la ci soxla hmm. yow it da ngay riigu dëggal sa bopp bu dikkee nga duma ko bu tawee nga topp ko parce que rek moo fa am en tant que entraîneur gis nga Jokal bu mu jugee Maroc. Ah. ni nga ko gisee ban état de forme nga gis ci moom. non man Jokal duma ko xool parce que am na mbër yooyu ñaari mbër yooyu bu ñu taxawee. Hmm. damay xool rek ci li nu fi jaar xam ne ci diggante six mois ak un an leneen mënu fi yokku parce que mënoo dem ba nga xamante ni yow dem nga ba bëgg a bëree lu mat trente ans dem Maroc dikk rek man ma la ci xool ci loo def wala loo deful. en tout cas doole de. non bu àndee doole kii moom euh, Jokal mënu ko doole ci àdduna. Hmm. kooku moom xalaatuma ko ñoom ñaar la muy mën a andi mooy poids nga mën a jëlee Maroc waaye doole moom fii la ñu koy wute te yaakaar naa jokkeel pois boobu yàgg naag moom ñi ko daan ñëpp poids boobu la ñu ko daan ci pois ci poids bu bëri. xeex wala xeex wala bëre lan la ci kéwal war a indi. non lépp lay xam nga kii tey buy bëre buy bëre am na combat yi buy bëre dañu koy libéré mu bëre. Hmm. parce que moom mën na xeex mën na bëre. te xeex bëre door la ñu wax xeex ak bëre la. Jokkel du lu mu mën am daw dañ ci tànk booy bi rek lay jéem te bu demee bu dikkee it dañu koy laalu tee ko xeex ak moom bëreeg moom. Hmm. te it est ce que dinañu ko may sax loolee noonee muy ñëw. parce que moom dem la bëgg a dem mais dina dem làmb ji dina ñëw mu bëgg a bëre mu teg ko tic. parce que hmm. ñaari mbir yi du benn. lu tax duñ benn. non dañu nekkul benn kii moo ko doole moo ko gën a nekk xale te kii mberu bëre door la te moom ni woote la ci bëre door. daanaka yi mu bëre yëpp. bëgg a dik àndee affaire mbapat mbapatam mokkut moo tax muy li koy dal di ko dal hmm. kii nag mbapatam defa mokk bore dooram mokk hmm. kon bawol bawol yëpp mën na ñëw séntu non allah ñu non bawol bawol yëpp dañuy ñëw parce que kii amul tey benn espoir bu ko gën a taxaw ci bawol parce que man xooluma mbër ci combat man dama lay nat ci fi nga jaar ak li ngay def ci sama kanam ni ci géej gi may gis li ngay entraîné gis li ngay bëre gis li ngay xeex mais mbër moo fi gis day am yenn combat yoo xamante nii di nga ko bëree noo xamante nii ñu bëri dañuy bëgg nga daan waa ji kut kaa kut boo ko daanut ñi nga xam ne dañu laa kontar naa du dara lam moom li fi nekk nga daan ñu ne yaa fi man nga daanu ñuy naan ñii la bëgg ne da ngaa juum ñii la bëggut naa kii du dara du mbër mm. mais l'essentiel que ñun nañu xam ki ki nu yor mm. parce que li am importance ci mbër rek staffu mbër mooy ngay gérer moralu mbër bi ba mu di fa nekk hmm. parce que mber moom tant que mu ngi entraîné chaque jour amul lu nekk ci moom ñu nekk staff bi li ñuy gérer rek mooy nay entraîné ba wóolu boppam di contact teg loo xamante nii buy départ fii lay xam ne lii laay bëre ji ci combat bi hmm. mu leer nañ ku mel ni Keba Kanté mu nekk papay Jokkel dégg nga sorti bu mu def nee na Bawol daa am lu ñu ko yoreel te ci kii la koy commencé ci moom la koy jëlee. waaw lan lan ngeen yoreel Kéba lan. maa ngi koy nuyu Kéba moom xam nga sama waay la. Hmm. dañuy wootante sax te hmm. Kéba dama koy féliciter parce que nag dama gis sama bopp ci moom daal. Hmm. parce que la am solo ci nit bu fekkee ni da ngaa nekk ci dëkk. dëkk ak ay xale ñuy yëngu ci benn affaire da nga leen a war a jàppale te Kéba day jàppale ñu bëri. même mbëri yu jokku ak Jokal sax da koy jàppale te it damaa rafet lu digganteem ak Jokal. parce que Jokal naqari la na naqari la gune. te toujours mu ngi defaraat mu ngi cak-cakal di jéem a réparé hmm. waaw loolu moom man xam naa ko ci mais nag Kéba moom nee naa ko combat bi moom du yomb ci yow. parce que lan la ko Bawol yoreel. ndax nee na Bawol dafa am lu ñu ko yoreel. te ci kii la ñuy njëkk a jël li ñu. Ah, ñu koy Kéba de man xaw ma lu ko bawal yoreel. loolu de laa bëgg a xam Kéba moom xam nga xaw nga maîtriser wut bawal bawal yi xam naa ne xaj na Mama Lamine nit ñi ko daana taw mu foog ne bawal la ñu rek. Hmm. ak yeneen mbër yi xam nga hmm. defet moom bu bëree da foog ne ñëpp la daan. Ah. <laughs> loolu mooy problème bi. waaye defe naa ñun laa lay gudd waaw <laughs> Kéba daa bëgg victoire. Ah. loolu tax maa lay jaajëfal. ok jërëjëf waaw ñu ngi woo nag bawal yëpp. Hmm. ñu tee seen mbër parce que dañoo war a jàppale booy yi mm. parce man boo gisee may son man awma xaj ak seen ci benn booy mm. booy it ñu xool ne àndandoo mooy doole kenn mënula demal sa bopp benn lam du yëngatu il faut ñu gëm loolu mais ku ne boo bëggee di wang-wangal tey nii nii amul benn mbër bu dëkk bawol boo xam ne waroon naa manqué fii mm. ñoom war na nañu xool parce que man duma ci manqué dara te nit da nga war a am référence da nga war a am xool ci koo xamante ni man wutuma ci làmb dara amuma ci xaalis hmm. te liw làmb ba fa làmb yem mën naa leen ñu ñaanuma yàlla sax dem ba di soxla ci xaalisu làmb muy xaalisu teg làmb ak xaalisu bërek xaalisu mberek yëpp mais nag damay ñii dañu di samay mbokk nekk sama deret ma di leen jàppale te yàlla tax parce que man amuma sax temps yi mais ñoom nanu am esprit boobu ma am ñoom ñi nga xamante nii ñoom la ñoo jël seen avenir yëpp teg ko ci xam ne dañoo war a ànd pour que mën a mën a mën a nekk benn pour làmb ju ñu dem occupé ko parce que supporters yi bawol bul sonn kenn moomu leen mhm. boo xoolee mobilisation tafatin bi nga xam ne dalay leer ne Thiès ba Touba lépp ci bawol la bokk waaw kon nag bu nu gisee mbër yi ànd rek supporters yi dañuy ànd te loolu moo am solo mais kenn mënu da nekk wang-wangal sa bopp ba dem saa nga ànd ak nit ñi loolu rek laa leen di jox comme message di gërëmit waa Médina hmm. muy Bamba Fall Cheikh Ba Seydou Gueye ak autorités yi med yi nekk ci Medina yëpp ñu jàppale mbër yi nekk Medina parce que ñun ñoom la ñu am su su ci mel ni Bamba Fall parce que moom sama xarit la. Hmm. parce que wax dëgg yàlla Medina ji nañu ko lu rëy. parce que saa yu jógee Medina jóg lu coow li bëri bëri bëri bëri ñii coow ñëpp mooy ñi nga xam ne dëkku dëkkunu Medina waaye képp ku dëkk Medina koo xamante nii bu Bamba Fall jógee doo jóg amul am na loolu nag bu fekkee ni saw askan dañu la ko ji. yow itam la ñu yaakaar ci yow da nga koy wane ci côté bu ne. Mm. mais bul ko jooyal benn côté rek aw benn côté. parce que ñun booy yu bëree ngi fi nekk Medina am fi jabar ak yëpp te bi ñuy juddu fi la ñu fekk ok jërëjëf. jërëjëf Bada Dione